jërë ngeen jëf suñu mbokk internet yi yéen a fii ci Kéwoulo seen site internet Kéwoulo Kéwoulo TV tey nag ñu ñëwoon fii zone de captage bu ñu waxee zone de captage xel dem ci bu nawet amee bu tawee ba pare o usées yi maanaam ndox taataa yi nekk fi tey nag ñu bëggoon woon amal li nga xamante ni moo di micro trottoir laaj askan wi li ñu xam ci ndox ak. yeex-yeex bi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoo war a saytu ndox mi fii ci zone de captage ndax ñoo ngi koy defam déet lu mu ci doon ci kanam tuuti di ngeen am ay intervenant ñu doxal ci micro trottoir bi léegi léegi ak. waaw fii dañuy faral di gis bu taw ba tawee ba pare askan wi li ñuy jàkkoonteel kenn mënu koo xam noona du ñi fi dëkk rek mais ñi nga xam ñoo ngi fiy suturloos di fi liggéey si ak ñi nga xam ñoo ngi fiy ñëw tamit di amal loo xamante ni ci seen wàllu liggéey la bokk yow nga bokk ci lan nga ci mën a wax. waaw man parce que depuis depuis vendredi ba léegi maa ngi woon livré sama ñaw yi mais gis nga dama ñëw léegi ñu ni moo xooloon dafa tawte parce que ndox bi dafa dem ba lu yéeg lu mat 2 mètres xaw ma 3 fii xam nga léegi xam nga loolu daal léegi daal man la ma bëggoon wax no mooy lenn Sénégal fii parce que fii euh, ñun maa ngi fàttali bu ñu nekkee xale sama maam amoon na fii ay tool parce que fii ay tool woon mais da nga jékki-jékki rek gis ñu commencé dagg ay terrain dagg-dagg yoo xam ne doo xam doo comprendre muy demee léegi nag def ay canal parce que canal moo jiitu balaa ngay tabax nga war dafa mel fii Sénégal fii euh, du ma ni nguur gi du ma ni peuple kii bi euh, opposition mais ñoom booy xool ñu ñëpp a yem que teguñu nit ñi ay doomu aadama yaakaar naa parce que ñoom ñi ngi dëkk fu neex dëkk fu lus mais dañuy bàyyi baadoolo yi di sonn xam nga du souffrir chaque jour xoolal fii ni lay mel ah li mel ni banlieue sax melul li wala banlieue bi mel leen ti nii c'est pas normal banlieue ak yeneen dëkk ñoo yem mais xoolal fii ni mel fii ay ñaata at ni lay mel te fii boo laajoon terrain léegi ñu ne 60 millions 70 millions 100 millions gars yi dañu koy jënd ah dañu koy jënd ñëpp dëkkuñu fi feneen la ñuy dëkk jënd ba pare bàyyi fi nit ñi ñu nekk si coono yi nii. for naa ci yooyu ba ñu ni 2012 ba léegi fii nii la mel yow kañ nga fi commencé fréquenter. dégg lu ma la wax naa man bu ñu nekkee xale dañoo ñëw fii fii toll la woon ñun maa ngi man Yara laa dëkk fii tout près fii ay toll la woon fii mais nii la mel boobu ba léegi dégg naa maire bi ñu ne maire bi moo fi nekkoon bële passé moo fi nekkaat.

à l'assemblée di fi nekk xëccoo fa lu mooy la mooy loolu mel ne yow nag yaa jàng ci sa dara dëkk bi ñu bëri jàng nañu am na ñoo xam ne ñu ngi ba fee pare amuñu tus lu jël si nit ñi ñu ngi yàlla yërëm leen dugal leen si kii ñu liggéey mais da ngay gis benn nit bu yor six fonctions wala set dafa bëri ñoo ngi lay jaajëfal bu baax sëñ eh, ndox bi sonaloon trop trop trop trop trop surtout canal bii nii mooy gën yokk coono quoi ndax day fees ñëw dugg si boulangerie bi yàq bagage yu bare vraiment yàqal na moom yaakaaroon trop ba sama kër gi sama néeg sax dafa am ndox sama malaa yëpp yàqu yaakaaroon daal trop nguur gi mu dimbali ñu ko mu jéem fexe ñu ci amee leneen quoi mi ngi moom vraiment yàqul noonu quoi. est-ce que yaakaaroon ñi doon dëkkuwaay fii est-ce que nekkuloon fii yoonu ndox ñu ñëw dëkk. ah fii yoonu ndox la mais nguur gi nga ko jaay ñu dëkk fi amuñu pexe moo tax ñu dëkk fi ndax nguur gi moo ko jaay muy ay kër ñu dëkk fi loolu la léegi yéen ban solution ngeen bëgg a wax askan wi pour nguur gi bu ko déggee wutal leen wutal leen solution. ban solution pour nguur gi. jooytu loo xamante ni nii boo leen ko jooytoo dinañ leen. canal bi chaque année mu daanoo da ko war def kuule ko def ko ay béton ñu kuule ko ba xamee dootul daanoote mais bii rek mënul téye ndox canal bi chaque année mu daan suñu kaw ndox mi ñëw yàqal ñu bare chaque jour mu yàqu chaque année ñu yàqule ñu yàqal loo xam ne mën na ko sax xayma ay millions millions yàqal chaque année loolu métti nañ trop. mais benn yoon ndox mus naa dugg ci fuur bi yàqal la. chaque jour mu dugg ci daaw ci dugg na ci ren dugg na ci ñaari yoon. chaque jour fëriñ bi day yàqu gasoil bi am ndox fuur yi suñu bëlër yëpp yàqu. maa lay jaajëfal Ndoye. merci beaucoup. dañuy gis fii bu tawee ba pare ndox mi ni muy mel eaux usées yi ndox muy taaju bi fii nekk ndoxu yoon yéen ban coono ngeen ci amee yéen ñi nga xamante ni yéen a fi yeewoo. Ah, xanaa am si coono rek wax dëgg yàlla ndaxte heure bu tawee moom fitna gi dina bëri fii lool sax fi gis gi borom kër yu bëri yoo xam ne bu tawee moom. vraiment du ñu mën a sax tëdd seen kër ndax day fees dell ak ndox dañuy obligé te guddi gi ñuy ŋàcc wala ñu dem wut ay moto pomp après seen bagage yi yàqu mooy loolu daal vraiment. ñu foree ci wow bay ni 2012 ba léegi zone de captage ni lay mel yéen ngeen dëkk fii fal ñi ngeen fi fal boobu ba léegi ñoom est-ce que ñoo ngi jug ci li nga xamante ni moo seen naqar fii nii zone de captage. waaw 2012 ba léegi moom presque boo xoolee sax euh, chaque instant bu nawet di jub si da ngay gis ñu ñëw fii di di jéem defar yooyu waaye day mel ni chaque année day gën a yokku daal waaw te li ma gis fii presque parce que man boobu ba léegi man maa ngi fii ci zone bi mais chaque année moom euh, coono yi day gën a yokku wàññeekuut wax dëgg yàlla wàññeekuut day gën a yokku wax dëgg waaw. lan nga amoon comme gis-gis comme solution boo xamante ni tey jii suñ leen ko tegaloon seen coono même bu fekkee lépp du dem tamit am na ci loo xamante ni dina wàññeeku. ah gis-gis gi kay mooy comme li ñuy gas nii parce que am na benn canal bu ñu gas fii depuis daaw. ñu ngi koy gas di ko yóbbu si canal kii kii bu mag ci bassin bi mais gis naa bi mu tawee nii dañu teral ay tiwo pour yóbbu ko si deux voies yi nga xamante ne moom mooy versé côté pont bi donc damay jàpp ne bu ñu defaroon comme nuñ ko defee noonu ay ay tiwo nii mu dem foofu bu ñu ko defoon donc xëy na côté bi dina gën a wàññeeku quoi vraiment. Ah, baax na ñoo ngi lay jaajëfal bu baax. waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax sant. waa ñoo ko gisandoo suñu mbokk internet yi safoo Kéwoulo TV. li lañ leen andiloon suñu micro trottoir jëm ci li nga xamante ni moo di eaux usées yi après ndox mi canal yi ak taataay lu mu ci mënti doon demoon nañ foofee nga xamante ni moo di zone de captage gis ngeen li kan wi wax ak ñi nga xamante ni ñoo fay daan seen doole dem nañ tamit xaar waaye bañ fa demee fekk nañ fa leneen loo xamante ni njortewuñ ko woon ndax maanaam lépp loo xamante ni da doon taa ci zone boobu lu jëm ci xaar yàlla biir Grand Yoff fekku ñu fa taataa kon ce qui veut dire que foofu am na progression lu jëm ci seen wàllum taataawu ndox beeg eaux usées yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig dégee ci yeneen micro trottoir loo xamante ni ci askan wi la jëm ñu leen di ziar bu baax a baax.